shahral qur'an wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ñu dikk ak tey di leen présenté benn jotaay boo xam ne ñu koy amal fii ci Touba M ñu tudde ko université Ramadan ñu fas yéene ci ànd ak ci biir koor gi muy am sa ñaari fan li ko tax a jóg mooy fàttalante ak dimbalante ci lépp lu aju ci wàllum koor niñ ko fas yéene dunde ak leçon yi nga xam ne war nañ ko cee jànge ngir buñ génnee ci koor gi lu nekk ñoo xam ne loolu dina bàyyi jeexit ci ñun ba jàmm yàlla yi ñu ci doon def lépp ñu mën koo wëyal ndax nit ki bu dund di dem waaye lépp lu ñu wees war na ay jàngat yu mu ci def ñu fas yéene ci ànd ak yéen nag ci ay tomb yu wute ak jàngat ñu leen di ñaan ngeen bàyyi ko xel te fas yéene koo teewlu naan yàlla mu dimbali ñu ci ba liñ ci bëgg lépp ñu mën ko cee amal waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.